jàppante nañu ku nekk nga sëgg jàpp sa morom Bébé Bismi jeex jàmm jeex jàmm bébé bismi da laa ëpp relonge jeex jàmm ngay dóor pour bébé bismi siggi plaqué demul bébé bismi jeex jàmm bébé bismi jeex jàmm jeex jàmm nga koy puus eh jeex jàmm ngay dóor jeex jàmm ngay dóor jeex jàmm ngay dóor bébé bismi jeex jàmm bébé bismi jeex jàmm ñoom ñaar jeex jaamu dóor na jeex jàmm dóor na jeex jaamu dóor na bébé bismi jeex jaam koy puus bébé bismi léegi mu génn saaku yi waaw bébé bismi mi eh na ko eh laa ilaaha illallah waa jeex jàmm xale bi am na doole bébé bismi jeex jàmm combat spécial ci diggante Bébé Bismi Jeex Jàmm ñu leen di fàttaliku Boy piir dañ koo daan e Tony Junior daan Bébé Gouy Gui Bébé Bismi mais Jeex Jàmm mo ngay rokkas ay coup Jeex Jàmm mo ngay rokkas ay coup eh. Bébé Bismi Jeex Jàmm jeex jaamu ma ngay rokkos ma ngay rokkos bébé bis mi jeex jaamu bébé bébé bis mi jeex jaamu nee naa la vainqueur eh bébé bis mi jeex jaamu ndengeñ bu yàgg ndengeñ bu yàgg bokkul ci làmb bi dafa war a tàqale Uh-huh. jeex jaama ngay dóor jeex jaama ngay dóor bébé bismi jeex jaam arbitre la war na ci diggante Bébé Bismi ak Jeex Jaam ñoo ngay lewtoo Jeex Jaam moo ngay dox ci kawam ñoo ngay lewtoo Bébé Bismi Jeex Jaam ñoom ñaar ñoo koy lewtoo ee eh, Bébé Bismi jël na ko jeex jàmm bañ na Bébé Bismi ngi koy bëgg a takk mu ngay jéeg a jàpp ngemb ndax Bébé Bismi day siggi bët ko dem waaye ndax bu jeex jàmm day bañ rasu génn arbi sifflé na lu xew cinq minutes ya jeex na jeex na Cheikh Jàmm ak Bébé Bismi arbitre sifflé waat na ci diggante Cheikh Jàmm ak Bébé Bismi ñoom ñaar ñoo koy lewtoo Bébé Bismi à gauche Cheikh Jàmm à droite arbitre na leen bëre leen Bébé Bismi jeex jàmm Bébé Bismi jeex jàmm ñoom ñaar bis bi bu daan bëre Mbaye Babacar dala daan agressé tey dama gis bëre. non combat bi dafa nekk combat capital dafa nekk combat capital te booy xool combat mag Siteu bu Ngor. da koo waaw da koo jàngal ci lu bëri. ñëw rek dox ci kaw mbër ne ko dama lay daan loolu kenn du ko def sa doom sax soo ko bëggee duma da ngay naxanteeg moom ba jàpp ko. l'expert Babacar borom Leewtoo moo doon wax noonu ba bis mi jeex jàmm. Bébé Bismi jeex jàmm arbitre sifflé avertissement Bébé Bismi avertissement jeex jàmm arbitre sifflé waat na ci diggante Bébé Bismi Cheikh Diam ku nekk am na jël na avertissement arbitre nee na leen ñu bëre waaye xali démb de damay seetaan làmb jékki-jékki ñuy bëre di bëre di bëre jékki promoteur ba dugg ci biir géew ba naan mbëri bëre leen <laughs> lamb bu njëkk ba laa fi gis Bébé Bismi jeex jàmm cay makan mbeng la doon king Bébé Bismi Bismi jeex jàmm ba bis mu jeex jàmm. bébé bis mi jeex jàmm ba tey ñoom ñaar ñoo nga sëgandi jàppante bis mi ngi koy jéem fàq waaye jeex jàmm bañ na bébé bis mi jeex jàmm bis mi jeex jàmm ndeysaan maa ngi nuyu Moustapha Gueye le PDG de Sénégéo borom Rwanda wa Gabon waaye bébé bis jeex jàmm combat calcul la ndax lii combat capital bébé bébé bis jeex jàmm waaye arbitre nga naan leen bëre leen niil damay xalaat mu niil jàppante nañuy baaram ca kaw foo xante looy wax ni tegante bopp la def waa gis nga dañuy tegante bopp Bébé Bismi jeex jàmm ak arbi sifflé war na da leen di woo Cheikh Diam daa jóge ci deux def deux avertissement kii deux avertissement ku nekk am na ñaari avertissement ah nañu di ëpp naa def kon mbaa temps bi dafa bariwul ëpp naa mbaa du ci match ndeysaan eh eh ngi noonu duma ko wax damay noppi waaw bébé bis mi mii jeex jaamu door na ko dàq ko mu taw génn saaku yi eh yow bébé bis mi jeex jaamu da koo daw dàq ko mu génn saaku non mais bébé bis mi dafa attaqué ak ay dóor gauche droite mais dafa mel ni ci biir dóor yi dafa mel ni moom daf ci gaañu dafa jël coup dafa gaañu noo noo non mën naa bañ a jël coup sax mais dafa jël coup mën naa gaañu ci loxo loolu laa gis na Bébé Bismi sept combats sept victoire jeex jàmm Bébé Bismi Ada Fass